sayyidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu dakiran wa shakiran abada wajcal kalaami rashida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam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 ci murit saadixam yu euh, yit yu kawe yitte yooye di ku ñuy wax sëriñ ma baabu Guèye sëriñ ma baabu Guèye sëriñ Tuubaa daf koo dénkoon dénk bu am solo boo xam ne ne danañ ci déggee ne sëriñ Tuubaa kat fenn rek la nekkoon muy euh, alquran ak sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sëriñ Tuubaa dafa waxoon sëriñ ma baabu Guèye ne ko wala takun mustaamilan illa bima yuwaafiqu sunnati mimma ulima waalam bi anna kulla fi'lin yaqa'u bi xulfi sunnatin falaysa yanfa'u yawma baabu bul jëfandikoo lenn lenn lenn lenn lu wuuteeg sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te it xam ne jëpp jëf ju wuuteeg sunna si bi du jariñ du am benn njariñ loolu nag daf ñuy delloo ci ne di ñu fàttali ci ne Serigne Touba ku ko féetale fenn fodul teg tànkam ci alkitaabu wa sunna yaa ngi koy waxal walla yaa ngi koy dëkkale wala yaa ngi koy féetale fu soreek fa mu nekk ndax bu ñu delloo ci am njàngaleem dañuy gis ne yoonu murit kenn mënu ko génne ci alkitaabu wa sunna alquran ak sunna si bi ndax li mu waxal boppam moom diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu diina jurul islaam rek gërëmuñ ko fa borom te diina jooji lay yeesal si muy sunna si yonent bi lil mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu wa inni ahmadu dafa ñëw ngir yeesal si sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ujaddidu shariatu almutahara inchaa wal xaqiqatu almunawara dama yeesal sharia ak xaqiqa nazaafatuhu kulli min allaxwi taharat wa sunnatuhu inchaa rabbi ubayinu kon da ngay seet ne abiyaat yi ma wax yëpp baatub tasis du ci feeñ maanaam sos tabiyin ak tajdid rek nga ci dégg biral ak yeesal biral ak yeesal te am na euh, kenn ci waykati naar yi ko waxoon ne yoonu Serigne Touba bi ma ko seetantalee gis naa ne ku digg doomu la ci sunna yonent bi te it alquran loolu la ñu wax maanaam dafa wax ne moom yoonu Serigne Touba daal mooy ad da'wa rabbaniya wasatiyya maanaam kuy woo koo xam ne day woote jëm ci sun borom te diggu doomu nekk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëppalut ni yenn mutasawif fi daan dundee waaye woyofalut it ni yenn fuqahaa yi daan dundee moo tax mu ne hidaayatuhu qasdun isa dayiqa allazi tasawaf jahlan aw tawasax dul fiqih te alquran loolu la wax wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata def nañ leen ngeen di xeet wu diggu doomu moo tax Sëriñ Tuubaa day wax ne yéen de digal naa leen ngeen nekk ñu diggu doomu bu leen ëppal bu leen yeesal na ngeen doomu ci sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita kon nag liñ ciy déggee mooy sëriñ Tuubaa de nekkoon mooy eh, ci alkitaabu wa sunna te it nee na ñett rek fi nekk waay kenn laaj ci àndal buñ demee ci téere téere boobu ñuy wax xikma ci xëtu fanweer ak ñaar page 32 ku dem da nga ko fekk lii Sëriñ Tuubaa wax ne képp ku jublu yàlla rek te raxu ca dara sama àndandoo nga ndax ñoo bokk fuñ jëm maag yow waaye ku jublu seytaane koo naag yow ba faaw ku jublu yàlla it ànd ak seytaane tàqalikoo naag yow ba faaw moo tax mu ne man tawajjaha ila arrahmani arrahim rafaqnaahu wa man tawajjaha ila sheytaani rajim faraqnaahu wa man tawajjaha ilallahi tabaraka wa taala ma cheytaani rajim faaraqnaahu kon loolu njàngale mu leer leer la la sëñ bay jaxate waxoon nag loole rek ca la ñuy dellu sëriñ bi kenn mënu koo gàkkal ndax yàlla suturaal na ko ba la doon jëf ñam nekkaloon gis nañ ko xam nañ ko bind na itam bàyyi bàyyi fi wax na itam ñëpp daan dégg daana wax na itam gàttuma tànk te yàgg diwuma fi moo tax sëñ Baye Jaxate day wax ne sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te digle na lii moo ko wàcc na mosaloo ma yu mosala fo waxam a gën waxi ku ne jëfam a gën jëfi ku ne a gën waayi ku ne waayam ca dëgg nag du fo foo gis ku neeti waayama muy foo ka nekk fa poma bul gëm ne kooka waayama waayam ca dëgg dootu fo foo gis ku neeti waayama muy foo ko mooy xumaaga ma foo gis ko neeti waayama wet dil ndegam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaaga fi ruus ak fo bamba wurusu sell la waayam daram bu sotti la te ku amu rax yeru la ab raxa bon day taxa fo xànjar lu dar dar ci wurus azal bu ko tëgg di gis xam ne dafay niri wurus ne du wurus wurus du fo wurus lu sellul bokku ca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 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ausu billahi min alsheytaani arrajimi bismillahi arrahmani arrahimi